C'est une boutique Lodeco Lodeco nekk une boutique boo xamante c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal ma rideau yi façon couleur bu nekk am na fi lii daal Lodeco rek la am Lodeco un prix en gros waaye itam am détail. Da fecură ko capital Cu ce sisu su Da fecură ko capital Su combine să lau Nya până ni la ce Na mo nyudara Fe până ni nu Nyunde nyu nice Axun revives gal fi să loconac fi moi capital eh. gàlle nostre solo mu tartar seytaane abaleñu xajoo fi sunu biir yow abaleñu man ne yam leen ci naan soow mi Banyak jay nak naag bi ëpp naa def mbaalu ko ardo jël nagam. as Fodé ya lan moo ba nga toog fii nii ci mbedd mi lan la Fodé waaru rek ak jaaxle lan moo la jaaxal lan la xamoo li jaaxal ni tabaski gi ñëw xar dara as nag yow da ngay font baax bi la font yalla mo tanga tok ci mbedd mi ni yow ya, bàyyi lepp ci loxo yalla yalla dina defar lepp ana loxo yi makoy koy loxo yalla la la wat wa ana loxo ana loxo yi bama lah, ko ci bàyyi. as loolu waxin la boko dege nit da ngay am deg dégg ah. ma ne bax inshallah de. yaakaaroo lan. pour mu bax as juga ñu yegg ci biir moo gën ku la romb fi foog ne da nga febar wala dara la. ma tok fi tok fi pour lan jógal yegg ci bir damay damay waaj joy ba bàyyi ma toog damay joy ci kanam touti mo tax déedéet fi do fi joy nak juga ba rek ci kanam touti ay 3 minutes joy damay joy eh sama rak ji nak ñew rek ñu yegg ci bir dama am lu ma lay doyee sax ñëwal jógal waaw jëlama 16 jël 16 ba daa du bi nga ñu dem ci bir yow non non dama damaa jaaxle jëlama 16 bi damaa la juga jël 16 yalla no demal rek ah bari nga imbéré ba yow ñëwal ak si waaw mën nga ma bàyyi rek ma toog mbedd mi amul sens bi li ngay toogee ci mbedd mi di touriste kañ nga toog ci biir kër gi ku romb xamal la ah si gis nga ab dëkk bu tollee foofu da nga xam ne foofu la toll fu dëkk bi toll yow ci jooy jooy moo jot sëkk Joy, ne xam nga ne loolu du du du du du fu baax ay Joy, jooy nit ñi dégg ñu Joy, mais joy xol la joy fi mu ne nii. ma yor mbir yi yàlla mooy defar lépp mën ngaa tëdd sa biir néeg bi xar fekk la fa. xar waaw. loolu ay pipiri pip la moom. <laughs> xar moom bu fekk kenn sa ko. man li ma la bëgg xamal bëgg rek nga dogal on laa bëgg nga xam ko. waaw loolu xam naa ko. ah waaw kon jarul toog fii di di touriste man ngay ndeysaanu ni yow it il faut nga xam ne moo dogal lii ci man moo tax ma ndeysaanu. asalaamaaleykum. もう最後そのはそうパレンが DM こういうこと GLB に gis nga sama noir ah mais maa ngi yor yow niroo temps sax mais lu tax xale yi jigéen yi yor teint noir yi rafet maa xam nga ne noir moo tegu ci jamono ñu dañuy télécharger te suñu application dafa cher xoolal pour nga am teint noir sax dafa yomb connexion bu doy sax du la ko indi maa la wax nii sinon ça va ah benn ville am sa toog sañ sama yaay fi jaar comme d'habitude rek <laughs> sama yaay sama yaay sama yaay sama yaay sama yaay yow mënoo ñëw dimbali. mais suñu yaay yi liñ fi am nii. bàyyi ma ni ma mel nii gisoo ma temps ni ma béylee. yaa ngi rafet moom macha allah ñu kaa ma ne xam laa bëgg. nga nekk mag tabaski baa ngi ñëw foog ñu kaa kaa bi. lu ñuy kaa encaissé. ma ne. utal ma sa benn jën. dóor ko ci di ko jox muy lekk di ko jox muy naan. jën. loo soxla mu jox la loolu. dafoo nag. ah damay laajte di. doo dof bëgg lu ku ma leeral rek góor loolu <laughs> daal temps yi damaa biili ba yàqu sama lépp a changé. kon yow ci mbaraan bi nga nekk nii nii nii moo tax nga mel nii xale góor yi ñoo lay financé. damay encaissé wel-wel. allé bu sotti. toogal sa biir kër ni da am sutura ah. xaaral ma la ana Musa àdduna mettiwul. ñun ñoo koy metti rek àdduna. metti na de na de. am lii. lii pour lan la. maa la ko jox pour loo ci loo ci teg am xar. ñeent téeméeri. waaw. ñaata laa ci war a dolli kon pour am xar. xaru ñaata nga bëgg yow. xaru cent vingt mille. cent vingt mille. waaw calculer ñaata mooy des. bu si ñeent téeméeri cent vingt mille. waaw mooy mooy deux doon cent. 118000 ah laa ci war a dolli. am téyel ma pour lan dama may. dama ak lan. lii. ah ma denc téyel ma ko. Oh. sa xaalis lii nga may jox xam la nga ci jublu. lan laa jublu ci lii yow. lii nga ma jox bu baax la nga ci may la ko nga ne dama ci damay dem di wuti lu ko mottale am nga wër ci bi di fenal ne jox nga ma xaalisu xar man maa jëndul xar. as yabaate ya nga de. sa nga gis. dama loolu laa gis waaw. <laughs> Mia delloo sin sa xel. sama xel demul jànk. Mia gis nga tabaski benn fan la de. moo tax ñu war a sàjj. te gis nga xale bu góor bu la bu la jox tey jii nii danga ko koy delloo ndax ale boo gis am na retour. Mia amul retour ale rek la am du ma rëbb di sooy. li wax ak yow neexul de damay ñibbi dama lay wax dëgg. Mia gis nga man tey jii nii sama yaay jox ma ba ma am moo ma gënal xale góor du ma jox. tey jii li tax sama yaay di ma jox c'est parce que liguey bi moo doxul té instant bi ni dama amul gaay yi ma lebal yépp ken fayaguma si musuna sonal yak tek sa bop té yow sa wax ji may sonal ndax bi ni car mo wara a Mia mo urgent Mia ma ngi ñew Mia délo sil sa xel vocal mako ciao Mia yow lay waxal wax ak yow nii waaye yettale rek do nga xam ne ngay def Mia awa waa tabaski wi de kumu tax nga ni da ngay dem di mbaane billahi di ko roccu baxna na fekk ponkal mo meuna maye lu bari mais yeen ñu ndaw ñi ciof ciomp rek ngeen maye ni nga tollu rek sa maye non lay tollu ne la nit ñu tuti xolam yaatu de gani xol bu yaatu da xacc ci sa jëm ji yow noo def ni yow salaamaaleykum eh Amina noo ça va bien yaa si jàmm namu naa la ça va excellent ça va naka mu yaa si jàmm noo def ça va Ah, bilaay maa la raw naka mu gëj ñoo gisee ah nekk ko ba ku la ah, xool papa as del wax lu la wóor ku la xool xam ne coop ah, coop nga vraiment Pape Fodé daal yaa gën a may woon fii ci cours yi daw par ci par là tu vois ci cours yi ah da koy wax ni mais bu ko prolongé noonu lañ koy waxee prolongé ko nga xoolee lu mu lay jox cours yi du noonu prolongé woo de. nan lañ koy waxee oor yow daal ci cours yooyu nga ne. Mhm. bu la ci dara jëlee na ci sax. amul problème sur moi. Ah. Eh, ana Fabi. Fabi mu ngi ci kaw. mi ci kaw ah. d'accord ko dem. gisee moom deux minutes ya, ma gën xam. truc de jigéen. waaw dina kontaan nag dafa laa gëj a gis. xam naa loolu. dag ñoo raam. <laughs> Fafo de. ok Amina sa loxo. Eh, Amina. eh yow mom dama fogné da nga matal bëgg dem wala nga def say saay Fodé hmm. li nga gess xalé bi yaa tay ban gess la ko gees. ma ngi xol sa bëtt bi téggi ko ci dënnam bi. ni ko xujju. gis nga yow yow sa jikko mom ngay mom ngay nit ñi. man nga fañu gis nga bi ngay xol wénu xalé bi. wén sa li nga wara upp yow bi ubal ko di koy jiiñ wén yow. yow tu da ko Fodé man ngay jiiñ wén ko mo mëna fen. te leer na man day yërndu ji mom gis néeg jigéen bi jigéen dugg ci kër gi jëm ci néegi te yërnduwul munu koo muñ xaliso xaliso bajo tasaare nga dunya ma ma ale te sama tabaski ngi wadi neex na un deux trois Kong kong kong, Amina. ma kii kan la. mais yow. allo. ci la ne. acca fés. ni mu nuyoo neexul la. tu la doo doo dugal fii dugal fii. déggal réglé sa jamono ci loo ne. ni ngi nii booy numu naa la. dañoo gëj bu nga eh ma bëgg nga

baa du yàgg. du hmm. baax na ça va. nga nag. naka yitte yi fees nga. ngay rouge danger nii. rouge danger noonu la. naka moom. maa ngi nii maa ngi ko. ak bi temps yi de ñu ngi bëgg a dee kër ci kër ci. temps yi la bi dama gën a xam ci si cher na cheveux ne la rendement. dëgg la de mais man yooyu noonu yëguma ko parce que chaque jour heure bi laay toog fii laay toog di compter sama maani essayer en comprendre mhm. parce que xaalis bii nii uh-huh. euh, heure bii nii damay def chaque heure bi ma génn ci mbedd bi jënd ndox séddale ko xale yi xam man damaa baax ah, damaa baax damaa yaru damaa bëgg nit mais boo bëggee aussi mën naa la jox xaalis bi du ah dara ci man parce que man damay génn ci mbedd bi di maye ay millions ah. je donne des millions à à à beaucoup beaucoup d'entreprises ici au Sénégal euh, Sinap nag wan booy ni leen mënu leen a sinap sinap ay modd la rek loolu de dugg na moom ni mu demee nii noonu loolu rek doy na ah, baax kenn du yow tamit waay man di ko la xaat nga bëgg koo jël nii. bismillah bismillah yow mi mool nga fees nga rek nga. bismillah kenn du yow yaay dirigé mais tamit mhm. ko. bu baax dama ko bëggee ëpp na. Eh, foog nga def dara. dara comme. foog nga def dara foog ñu xoolal sam yi may daan jox xaalis maanaam ñu ngi may woo nii. déedéet kay. Mhm. bëggee mhm. kii. Euh, <laughs> bon là ñu nek di tek parce que vu que ça fait un bail que gisante wuñ et tout. voilà wax guddal lu ko gatal man ak yow. yéeg ci kaw. ci mhm. néegu nuuru. am benn bu sew benn rek jarul ñuy yéeg ci ñaar parce que man instant ni temps dama damaa jeex li may jël ci benn bu sew dafa bëri. c'est à comprendre waaw. ma lay jox tan tamit. bu mu paree man jox le benn deux merde. merde je te dis. yow ay eh, attends da nga dof. da nga lu bon wala da nga réew. non non attends wax ma rek ban la si. Ah, yow tu te prends pour kii. yow maa ngi di wax ak yow aisément ngay wax sa waxu dof yow yow lan nga ma foog. lan ah? nga ma foog laa la wax. lan nga ma foog su may wax ak yow da may déglu quand je parle tu m'écoutes. ma jox naa dama lekk sa baaraam waxaat mooy lekk naa la. am si lu may seet waaye bu tolloo ma def lu bon yow. yaa ngi sol mais eh. lu ñu wax benn ngeen di fukk da ngeen a yabaat ku leen jël baaraam ngeen jël loxo. Eh, Amina du nii. papaas fekkee moo la ci boole. dama bëgg nga waxal sa jabaat ki dafa yabaate. pour man sax fa bi nga jotee. non jotee ma fa bi ki dafa yabaate. mais yow ci sa problème moom lan la tegal. xamoo problème bi ngeen seq problème bi nga may laaj problème bi. mais damay laaj moom lan la problème bi yow ci sa problème pour kii. Eh, Amina taxawal Amina bul dóor defal ndànk defal ndànk. yow lay buux eh, lay buux kay. saay wuy ma nijaay lii dara amul ben problème dama na ko roqi min roqaani. lu ngeen di roq ah rek roq min roqaani maanaam nu balaa maam boo bëggee dara foog nga def dara. papa écoute moi n'est-ce pas fii laa leen romb yow ak papa Fodé. may leen maa dem pour voir Fabi ci kaw n'est-ce mm, pas. ma pare ak Fabi ñëw ne dama koy def ben petit coucou soir Jean parce que gëj naa fi. Mm-hmm. léegi loolu du yoon. Mm-hmm. ma fekk ko foofu may wax ak moom il se permet de me dire que voilà on va aller dans la chambre faire je ne sais pas quoi il se prend pour qui. Euh, wuy ma lii du xuloo tubaab xuloo olof la doo ma dimbali nga wax ko ci wolof man wax man mi ngay kalaame ma xam. d'accord baax na pour être bref dama dem di ko nuyu. mënuñu dugg si biir néeg bi def lu sew. te lu di jigéen ko. saa yi nijaay. waaw kii bu sew bi laa xam may muy rey boppam su ma waxoon bu mag bi fan la jëm. yow yaa sew bu sew yow yaa ñàkk la wax. mais xool na sa xol sedd. comme man maa indi jaayam dinaa ko lijjanti bam ni kocc ni koroj. vous avez intérêt. dang koy lijjanti wala ma yóbbu la au cours de la haie ñuy yëg di wàcc tribunal gendarmerie bañu ma si dara laa kan nga yóbbu man maa la proposé que yow que moom yéen ñëpp laay boole bu demee central ñu tëj ñu doo déglu seul nga central amina oui ma amina rien du tout xamala la vous êtes tous pareils vous m'énervez à la fin dëmbale leen mais yaay bu baax eh, yow yaa ñàkk jom waaye jaaral fii nga am xale bu baax jaar ak say kawas ngay mel ni Camara nii man jour laa woon xamoon loolu waaye toogal fii sa kanam gu wéet gi di mel ni daggu jaxute yow mënoo nite ah waaw kay waay boo bëleel bët bu añul faaw mu reer nijaay kii li muy teg yëpp dara amu ci kii dafa ñëw ci salle bi fekk ma toog ma toog sama kóol di compter sama maan yi di sama diis bu taxu c'est encore ma daan li ma lay tegal nii may compter benn ñaar avant ma daaneel si ñett bi mu dugg ci commencé ça va fallu sinon waaye kenn mu demee nii mu ne daa bëggoon ma jox ko maane bi gis ko sama mu yaakaar ne dama koy joxee maane bi noonu noonu. Mhm. na jaay balaa ngaa dugg ci oto foog nga fay xaalis. waaw balaa ngaa traversé géej foog nga yéeg bateau. dëgg la balaa ngaa dem beneen dëkk au moins foog nga yéeg avion. Mhm. ma ne ko dañuy dugg ci néeg bi def roq mi roqaani. Mhm. def yëf saay saay ma jox la maane bi. noonu nga ko waxee. noonu laa ko waxee. foogoon naa ne doonu nga seen nijaay mais doonu woo seen nijaay. waaw nijaay lay teg nii gaan. ah yow mat su nawetaan ngay yow footballoo réglementaire gis nga jigéen danga koy mbaal bu la nee dam jox ma xaalis patati patataaw xoy nga ko xaalis gis na ko ba tax mu jëfur mais amal loo ko ñamal ni ko dawal demal yoonu tool la lay def après day ñëwaat boo leen waaxoo ak sa tuutiwaay bi dañuy daw ndax dañuy xam ne sa ngarduk suuf gi moo màgg bi ngay doon xale doon lu tuuti ma xool sa demi arba bi tol nu ko neex laa xam ne xale boo njàpp mu daw de def ndànk di naxanteeg ñoom ba jàpp leen jigéen kenn du ko forcer match la da ngay def ay technique ba dugal bal bi. waaw wax nga dëgg de ah ngay jóg di fëlëx fëlëxit sa nopp yu gudd yi. booy yi ñaa lañ ko doon proposé ci wàllu moom. booy bi vingt deux mille laa ko proposé mu wàcc di yóoxu pàcc ci pàcc. ni nga ko ko joxe moo baaxul. génneel xaalis ma wan la ni ñuy xooyee jigéen xaalis pour nga moom ko. wax ni génneel. sama nijaay. dëgg dëgg sama nijaay mooy sama yaay. waaw ba pare nga am nooy doxeek man demal ma wàll. sama nijaay mooy sama yaay. waaw sama yaay nijaay mooy yaay. dañoo yàq baat bi mais ni yaay la ni yaay. ni yaay ni yaay. tant dix mille laa ko njëkk a jox. ni ko joxe nii baaxul. tuuta yi léegi wan ma nan laa ko waroon joxe wan ma. ngay def. waaw. léegi gis nga 1000 francs yi. waaw. téyel ma woon la exemple. <laughs> téeméer bi da nga kiy paas boo demee ba kër ga nga jox sa yaay beneen téeméer bi. la mooy ni lu bon bon mu lekk sa ñaq. téeméer bu fekkee une semaine la sax mu dépense ci na sa yaay di lekk sa ñaq yow kenn mënta wax a wax ba lekk loo moom loo am jox ko jigéen ñi. waaye ni yaay la lu ma ko jox. lan ko jox am yii dama koy soxla. 21 mille dama koo soxla. Eh, am na 21 mille yi dama koo soxla. dama koo yittewoo daa am lu ma ciy réglé. nga 21 mille yi boo ko lekkee. waaw nga mel ni 2021 yaa ngi fàttaliku mars ba. ragaluma loolu fi la ma fekkoon te dawuma. waaw jógal nga génn koona bi. jógal da ngay jooy. Eh, ak sa nopp yu guddi yi waaye ngay. jual finalement c'est ça di kii léegi vingt et un mille ak deux mille vingt trois mille ma demaat li jënd ji waat ndax Fodé dama ne ko woon dencal ma rek mot boole ko ay bandi yu kii ñu defal ko affaire boo xamante ni lu ma teg mu teggi dina am xar triande ba am ko tëbasi gu neex mbaa tànk ci kaso bi ñu tëj ma ma bañ am benn biir bi xar voilà capital. Feel my capital. Yeah. Capital. Oh. Feel my capital.